te ñu daal di dem ndun suma gaay yi fekk fa ñan waa Barcelone waa Barcelone boo ko déggee mooy waa mbokk Fap mbokk Fap boo ko déggee mooy ñi nga xam ne ñoo bokk Papa ndeysaan tubaar fakala macha allah di waa ASC Barcelone ñoo woote fan sa ñoojor le 25 ba le 29 janvier 2022 ñu tegal leen lan ndeysaan ma ni raas ba tegal leen nañ leen sa li nga xam mooy écran plat ak 5000 francs tegal leen si poussière bi li nga xam ne moo di xar mbo mbee ak li nga xam ne moo di 10 000 francs tegal leen si raw gàddu bi nag ak 25 000 francs tegal leen si tànk yi li nga xam moo di ñaari nag ak li nga xam mooy 15000 francs animation wali caare lay doon ak ki xam mooy El Hadj Ndiaye kon sa ñoojoor lay xëyee bu ko kenn tardé dëkkub Père Beuz suma papa dëkkub ba dëkkub Cheikh Tidiane Niang Omar Dialang ak ki nga xam mooy Faye ba Niki Fata kon gars yi rendez-vous ana sur farate ndun ñoo woote ñoojoor le cinq ba le 29 rang mi biiti biiti waaye dafa am combat spécial si biir de sama gars yi hehe looloo jarat ne fekkee day neex day saf rendez-vous ana sur farate ñoojoor la ñu wax